colonel Antoine Wardini euh, ñu ngi lay nuyu di la dalal. maa leen di voilà yow euh, tey ñu bëgg waxtaan ak yow ci li nga xam ne mooy xew ci sous-région bi muy coup d'état yi nga xam ne gis nañ ne dafa mel ni tey euh, phénomène la euh, ñu bëggoon a dellu si un peu taarix ndax nekk nga ci armée bi xam nga ni muy demee ndax Afrique de l'Ouest tey mbir mi dafa doon histoire bu yàgg ak coup d'état yi nga xam ne ñu ngi koy dégg. non yaakaaruma ne Afrique de l'Ouest bi ngay wax ni yaakaaruma ne. coup d'état yi bëri na fi bëri boo xam mun naa ne yàgg nañ fi. Mm. am amoon na ay coup d'état parce que coup d'état moom du Afrique de l'Ouest rek Afrique bi àddina bi yëpp am na ay coup d'état coup d'état moom fi lañ fekk mu ngi fi lañ koy bàyyi itam. Mm-hmm. parce que coup d'état moom ak liggéey ay armée soldats yi seen liggéey. ak seen nekk naay seen nekk waay yi nekk ak le gouvernement nekk ci ordre gouvernement baak yooyu mm-hmm. di gis di xam ni muy demee di

du teelee jeex certainement dana continuer. Mm-hmm. luy indi coup d'état yi nag moom comme ni ma la si mën a wax moom coup d'état yi comme ni bëri ñuy wax rek affaire yi benn euh, métti métti boo xam benn euh, désillusion la benn euh, déception la wala benn envie am un peu de légitimité am un peu de de de de, de social ou bien de une bonne économie wala nit yi. ñu gis ci seen gis seen seen soxla yi ñu fajal ko moom moo amul nit yi mer population yi seen xel jeex seen xol jeex moom ay tension politique di am ay tension économique di ay tension sociale xam naa loolu mooy tax rek coup d'état yi di parce que bu fekkoon lépp a dox ni mu war a doxee mm-hmm. bu fekkoon ñëpp a ngi ciy gis seen bopp. bu mm-hmm. fekkoon ñëpp a ngi am liggéey di ci faj seen soxla defe naa dinañ tal leneen lu def ay coup d'état. Mm-hmm. parce que coup d'état moom doo jug rek ñu ne coup d'état am na rek day jug rek mu daanoo. coup d'état boo ko gisee wala boo ko déggee fenn boo gasee ba mu xóot nga xool rek da nga xam lu ko waral le plus souvent da ngay gis ne day am benn malaise boo xam. dafay dem ba gouvernement bi liggéeyatuñ. Mhm. xuloo yi xeex yi saagante yi kenn gëmatul kenn kenn faleetul kenn gouvernement ngi jéem a def lu mënti def gars yi di compter di tuur suuf si liggéeyam wala gars ñoom itam ñu ngi bëgg loo xam euh, pour faj seen i soxla amuñ ko ci gouvernement bi xol yi jeex tension politique yi jug loolu mooy indi souvent ay coup d'état comme ni ko Paul Kagame waxee rek le président bi nekk Rwanda. Mhm. mais bu nga xam ne bu ngeen yi bëri yëpp lu ko mooy parce que gouvernance bi moo moo demeewul nu mu demee parce que bu demeewul nu mu demee foog naa nit dañ tal leneen. Mhm. te boo gëstoo tam tuuti nga demoon Ghana tam amoon na benn capitaine bi capitaine Jerry Rawling. Jerry Ghana nekkoon moom tam. Mhm. jëloon na fa pouvoir bi coup d'état quelque temps mu delloo ko civil yi. civil en tout cas doxalu ñu war a doxalee wala yóbbuwuñ dëkk bi fi ko war a yóbbu tam mu gis na encore affaire bi jëmul kanam mu ngi gën a yàqu mu desiwaat nanguwaat ko defar dëkk bi toog fa ay ati at boobu mu defar ba mu normal mu door ko te boo xoolee tam am na yeneen dëkk yoo xam du foofu rek am na yeneen dëkk yoo xam a commencé woon ak Thomas Sankara mm-hmm. mais am na tam ay ay nit yoo xam ne dañuy jug rek wóolu seen doole d'accord ñu président bi xuloo moom rek ñëw coup d'état fàdd ko mu ñoo yore ñoo ñoo yore doole yi Gambie bon du temps de Yaya Jammeh Jammeh waaw du temps de Yaya Jammeh noonu la moom tam jëloon na toog na fa ay at defar na li mën a defar def na moom li mu yaakaar defar na ko mais gars yi gisee wuñ ko noonu. Mhm. parce que bi mu fay jógee tamit ni mu fa jógee. Mhm. gars yi gañ nañ ko jàpp si loolu tax mu mujj bàyyi mais am na effectivement ay ay kilifa militaire yoo xam ñoom dañuy def parce que. situation bi moo ko laaj ak askan bi ñoo ko soxla ñu jël pouvoir bi jéem a redressé am na ñoo xam ne ñoom dañ koy jël tam bu ci laxas jaaj bu ci toog mhm. donc mënum wax ne baax na wala coup d'état bi bon na wante jox na la ay exemple muy Rwanda muy Ghana muy Burkina Faso du temps de Thomas Sankara ak yeneen dëkk. ak si àddina bi sax yeneen dëkk tam yoo xam amoon coup d'état. Mhm. réglé nañ problème bi am na réglé wuñ problème bi kon mu leen lu baax la. mënuma la lu bon la wante bu demee ba am rek xamal ne am na lu xew. Euh, colonel tey euh, ju nga ko say biir wax ñii nga xam ne ñooy militaires yi dañuy nekk au cœur du système ndax loolu tax na à chaque fois bu ñu waxee coup d'état rek euh, xel yi day dem ci ñoom. waaw parce que bu ñu nee coup d'état effectivement xel yi day dem souvent ci militaire parce que militaire ñoom ñoo yore ngànnaay yi ñoom ñoo yore soldats yi ñoom ñoo yore moyens yi. ñoom li ñu am ci ngànnaay ak nit ak ay moyens benn citoyen fenn benn citoyen amu ko. Mhm. te benn entreprise nationale amu ko. ñoom ñoo yore gànnaay ñoo yore lépp. Mhm. donc ñoom te ñoom tam dañuy liggéey gouvernement bi. Mhm. ñu ngi si ak président bi ñu ngi ak gouvernement bi li ñuy def yëpp. ñoom ñoo jàppale gouvernement bi pour ñu mën a exécuter yenn missions yi que ça soit au niveau national fii wala même au niveau étranger au niveau international boo gisee ONU troupe sénégalais yu bëri militaire sénégalais yu bëri dañuy dem di tontu ji ONU ONU dafay oo gouvernement Sénégal ci accord yu ñu signé a rétablir yenn pays pour defal àddina bi normal am jàmm ni di mujj dëkk. Mhm. souvent kon te bu ñu ooyee Sénégal Sénégal du président mooy dem du ministre mooy dem. Mhm. armée la ñuy donc armée mooy seen seen bras armé boo xam mën nañu utiliser pour régler yenn problème dans la voie normale pour tontu si seen accords yi ñu signé dans le monde et donc arme boobu tam di liggéey gouvernement bi fu ñu koy yóbbu ak fi ñu xam nañ lu bëri xam nañ lu xew xam nañ naka lañ gouvernement bi parce que boo xoolee tam armée mhm. dafa mel ni ab gouvernement dafa la mhm. xam naa ne nag ñun kilifa yi ñun armée yi civil yi ñooy suñu patron ñooy suñu chef ñun dañuy Euh, liggéey ci euh, ordre civil yi. Mhm. mais li ñuy def ci gouvernement civil yëpp armée da koy def pratiquement boo xoolee boo amee ay ay ay gouverneur ñun am nañu ay commandant de zone boo amee ay préfet ñun am nañu ay chef de corps boo amee ay directeur ñun am nañu ay directeur tam outillage ak matériel baak fon fon yëpp am na ci quartier gi wante ñoo liggéey bi ñuy liggéey ñun ci quartier gi pour ñu mun a mën a naawal suñu bopp mën a liggéey suñu bopp mais toujours ci autorité civile bi la wax loolu il faut mu leer mais mhm. xam nañ lépp li muy demee ak ni muy xam nañ ko donc ñun. bu coup d'état amee militaires yi jël tam xam nañ lu xew xam ne ni muy doxee xam nañ ni muy liggéey boo xoolee Mali tey xool Guinée tey gars yi jël nañ dara ñu ngi doxal loolu laa la bëggoon wax daal. d'accord kon souvent mën nañoo wax ne euh, armée day topp bëgg-bëgg askan wi. noonu la ñuy mën a décrypter coup d'état yu waaw waaw dana topp armée day déglu day toog di xool armée day toog di xool armée bi armée nationale la armée boo xam ne ñëpp la fi nekkal armée nekkalu fi président nekkalu fi Mademba ni ma Massemba. Hmm. armée la parce que boo xoolee bi ñëpp ay doomu jàmbur lañ doomu joola doomu séeréer doomu wolof doomu pël Fuuta ñëpp diversité la ñëw pour liggéey pour armée bi armée dafa mission. Hmm. mission armée la ñuy ñun. Hmm. mission armée boobu nag ñun moom la ñu doon léegi nag bu ñu xoolee di xool dëkk bi mu ngi dox lu normal ñu sant yàlla ñu continuer recruter di continuer di liggéey. Hmm. bu xoolee gis am na ay jafe-jafe ñu conseiller président dañu conseiller loolu ko conseiller. Hmm. mais bu demee ba Afrique ñaar nga xam conseil bu bëgg a dee te Afrique dara baaxul dëkk baa ngi lakk dëkk baa ngi yàqu autorité amatul dëkk bi yëpp tasaaroon si bi dëkk ñu koy lakk. ah duñ toog di xoolee soit gouvernement bi jox ñu pouvoir bi wala ñu jël delluwaat ingénieur yi fonctionné ñu dëgëraatal affaire tuuti doo ko joxaat civil yi parce que civil ñooy commandé mhm. ñun dañ fi nekk rek comme seen bras armé pour bu fekkee am na loo xam doxul luñ bëgg def te mënuñ ko def lu normal ñu ñu defal ko mhm. bu fekkee nag léegi dem nañ dëkk baa ngi jaxatoo gis président bi moom li muy def wóor na àddina ba yëpp mais li muy def normalul Sonko-Wekk moo xam en ah, ce moment-là le, le militaire est obligé de prendre ses responsabilités jéem a rétablir l'ordre mhm. bu fekkee président dawul tam ñu jël jël président bi doxal jëmaat kanam loolu mooy suñu responsabilité. ñu gis ne tamit euh, à chaque fois dañuy am ñu ñuy tudd muy ay forces spéciales loolu lu muy wundu. waaw nit ñu bëri nag dañuy wax force spéciale te xam naa ñu bëri xamuñ li force spéciale. Mhm. parce ñu bëri ñu force spéciale buñ déggee militaire bu sol yenn tenue yenn machine yi ne force spéciale la non force spéciale yi ay militaire lañ yoo xam dañoo def ay militaire lañ ba pare mm-hmm. ci militaire yi dañ ci tànn ay nit yoo xam dañu leen defal benn formation boo xam dañ formation euh, force spéciale force kooku ay mission la boo xam du mission ordinaire du mission comme ne yóbbu la Casamance ngay frontière ba wala ñu yóbbu la fii ngay contrôler oto wala ngay def contrôle de douane wala ngay non du loolu def militaire nga comme ñoom comme ñoom ba pare mais da nga am beneen formation bu xam di da koy am te ñoom amuñ ko. Mhm. pour dem mission yoo xam mission yu dangereuse mission yu jafe-jafe-jafe pour nga xool yoon naka nga koy defee ba lijjanti ko ba régler ko normalement. Mhm. par exemple ay ay ay otages dans une ambassade wala dans un bateau dans un avion. wala président bu ñu attaqué palais bi gars yi Sonko yow force spéciale ñoo ñëw bu fexe ba génne ko fa yóbbu ko fa te dara du ko dal wala sauvé ko. Hmm. wala boo gisee ay ay unité yoo xam ay ennemis yoo xam sol nañ leen ñu ngi leen di attaqué yéen ngeen dem sànni ay tur seen gannaaw guddi gi sànni ay tur gars def ay ay force spéciale yoo xam mission yi def il faut uuteeg mission ordinaire militaire. Hmm. Hmm. loolu mooy force spéciale léegi nag gis naa dans beaucoup de pays comme ay Guinée même Côte d'Ivoire déggoon na dëkk fii. ñun suñu force spéciale c'est dans l'armée mhm. gendarmerie la présidence gendarmerie la c'est les gendarmes qui sécurisent la garde présidentielle qui sécurise le palais mhm. nous nos forces spéciales ñu ngi armée bi lañ mhm. mais bu ñu leen soxlaa tam bu ñu leen war a major dana xam nu mu leen di parce qu'ils ont des missions spécifiques waaw uti nag euh, Guinée dégg naa affaire Doumbouya euh, le le président actuel la. Mhm. dégg naa ñu ne force spéciale dégg naa ne si kilifa force spéciale yi sax la bokkoon ñooñu ñoo doon aar euh, kaaraange président bi ñoo ko doon sàmmal kaaraange nekk si wetam. dégg naa moom force spéciale dégg naa formé nañu ko fii Sénégal dégg naa bokk na légion étrangère française dégg naa def na for def na formation au moins force spéciale man nag xaw ma ko nekkum Guinée xaw ma ndax loolu la wala nit yi li ñuy wax laa liir wala mais force spéciale du militaire mais c'est un militaire qui a fait une autre formation, en plus une formation pour des opérations très spéciales, pas des opérations ordinaires. Et justement, est-ce que du formation de plus boobu moo leen di jox doole gi nga xam ne dañ koy am tey. ah si eh, force spéciale yi fi mu di nekk muy Sénégal muy Guinée muy fépp force spéciale yi formation bi ñu am soldat normal amu ko. Hmm. soldat normal amu ko te équipement yi ñu am ay équipements xam. soldat normal yoru ko tam mhm. waaw il faut ñu wax dëgg ñooñu dañu am doole ñoom mhm. dañu am doole dañu am formation am professionnalisme ñoom dañu xam li ñuy def mën a ñëw dugg ba génne doole sax yëg mhm. loolu moom moom moom moom am na moom loolu moom il faut qu'on qu'on consolide moom kuñ ko tàggee kuñ ko qualifié kuñ ne force spéciale na xamal ne vraiment am nga loo xam tu peux en être fier hein d'accord colonel Antoine Wardini ñu lay jaajëfal euh, bu baax a baax merci beaucoup